sama xalaat yàgg na mbirum xalifa Sall départ bi du woon mbirum juridique mbirum politik la woon bi pouvoir bi tabaxee li mu tabax ba pare dafa ñëw këf xalifa Sall dugal ko ci kaso bi waaw mais dañu boo jëlee nit dugal ko ci kaso dee ka nga jàpp ko

Respectons lu ñuy présomptions présomption d'innocence ñaa ñetteel bi Khalifa Sall présenté wu député ñu élire ko boo nekkee député am une immunité parlementaire Nous gi comme assemblée nationale nous seen bët ci ni ñoom duñu Khalifa bi ñu demee ba ci kanam ñu ne ah, immunité parlementaire bi dañ koy li jaaxal nit ñi mooy immunité parlementaire bo xamné ne yow reconnaître ko ba paré ni amul légui naka nga koy lever ñu ne ñom lever nañ ko wa irrégularité yoyu am ci dossier bi sa bare bari irrégularité bo motax ñu né dañu wara annuler toute la procédure ce buñ ko annuler foog ñu libérer Khalifa comme comme rew mi dañu tollu fo xam ni nguur gi daf ko bëgg jaay wa bitum bitim réew loolu moo xew ci Sénégal tay jaay nañ pétrole bi nga xamni ni sax jaay nañ ko bitum réew bi nga xamni ni ay contrat 30 ans yo xamni eh, ku ñëw itam di nga fi fekk contrat 30 ans yo xamni def nañ orange gis nañ ni mu tege loxoom ci Sonatel ba jël liggéey bi nga xam ni liggéey bi ñu defaroon na ba pare ñëpp gis nañ ko. Euh, yeneen ak yeneen euh, Total ni mu duggee fi mu ne ci pétrole bi Auchan ni mu duggee fii ci affaire njaay mi yooyu yëpp mooy wone ni sunu nguur yi fi nekk dafa bëgg a jaay koom-koomu réew mi waa bitim réew senegale yi nga xam ni ñoom ñoo fi des nag dese fi ak misère loolu nag nit ñi dañuy war a jóg moo tax muy soutenir commerçant yi. ci seen xeex bi ñuy combat patriotique au-delà seen intérêt bopp yi ñu ci am dafa am combat patriotique ce combat patriotique il faut soutenir comme entrepreneur nationaux du commerçant yi rek entrepreneur nationaux yi sont étouffés. Le leen di étouffer marché bu am ñu jox ko étranger yi loolu itam war nañ ko xeex ni ñuy xeexee lii kon d'accord nañ ak bi soutenir nañ ko.